Sud Matin. Merci d'être à l'écoute des programmes sur, de Scène Radio. Vous êtes sur l'ensemble des réseaux synchronisés.

Euh, les sportifs au, logés au village en sport COSAFA Cup euh, Sénégal Afrique du Sud de l'affiche de la finance dimanche. Les Lions sont le délégué fédéral. Santidine Diatra fait le point dans ce journal Ligue 1 sénégalaise 26e journée. Euh, Djambar pour la Coupe CAF. Nies Goré sauvé, Saldembourg et Niaritali relégués. et la retour de GZ Kali complète cette édition. Hassan Toun assure les opérations techniques.

prévoir dans un document signé ce samedi. Par conséquent, souligne Antoine Félix Diom, le port de masque est devenu obligatoire sur la voie publique, les services de l'administration publique, quel qu'en soit le mode de gestion, les services du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport public et les moyens de transport privé transportant au moins deux personnes. Malgré les mises en garde du chef de l'État, Macky Sall, face aux variants Delta dans le transport, le constat euh, euh, rares sont les non-compatriotes qui de transport. Reportage Ismaël Le port obligatoire de masques dans les véhicules de transport exigé par nos autorités n'a pas eu un écho favorable du côté des usagers. C'est le constat fait dans plusieurs véhicules de transport. Ce passager en partance pour Rufisque explique le pourquoi. Les gens ont peu, habitué de la baisse euh, du Covid. Que euh, maintenant, on respecte plus les mesures Par rapport aux jeunes, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. en ce moment-là. Parce que le fait qu'on a, les masques jusqu'à un un peu difficile. Pour ce chauffeur de bus Tata, il sera très difficile pour les conducteurs et les receveurs d'exiger cela aux passagers. Pour lui, seules les forces de l'ordre peuvent inciter les passagers au port obligatoire de masque. ñun yi ñoom homme de tenue yi ñoo. c'est impossible de les faire obéir. entre civils c'est toujours comme ça il faut que la police nous vienne en aide. ou bien tu vois quelqu'un mettre son masque et dès qu'il est dans la voiture il l'enlève et savoir que vraiment le chauffeur ou le receveur ils peuvent pas régler le problème ou apporter une solution il faut que la police soit là. ñoom dara homme yi a dimbali te yàlla tax. un chauffeur de car rapide il est certes difficile de demander au client de porter le masque avant de monter à bord de son véhicule, mais face à la recrudescence de cette pandémie, mieux vaut porter un masque pour se protéger. Parce que corona, corona, corona. Depuis le début, j'entends le nom de la maladie, corona, corona. J'y crois bien, puisque Ceux qui le disent sont des spécialistes. Ils savent ce qu'il en est. Voilà, donc on doit respecter les mesures. Maintenant, c'est le président Macky Sall qui est indexé. On dit que c'est lui qui a propagé la maladie à cause de ses tournées économiques. Mais en tout cas, ce qu'on doit faire, c'est respecter ce que disent les médecins. porter les masques si on sait que porter les masques pour nous aider donc j'invite les gens à respecter les mesures. jàmm rek. En ce premier jour d'application des nouvelles restrictions, le constat dans les véhicules de transport à Dakar est que les gens continuent de fouler aux pieds les mesures édictées par les autorités. Ismaël Marcel Collier, justement, Y'en a marre, qui regrette la forte propagation dans une déclaration rendue publique hier. Il accuse le Macky Sall de haute trahison euh, contre euh, donc Babacar Sam qui revient sur cette déclaration. Un record explosif enregistré ce samedi, 2778 cas de Covid-19 en l'espace de 72 heures. 11 décès ces deux derniers jours. Les chiffres inquiètent. Le mouvement Y'en a marre alerte. Situation grave, situation catastrophique. Les activistes accusent le régime en place qu'ils prennent pour unique responsable de la situation actuelle. que ni gouvernement bi dafa daanu amatul doole pour la ko waroon def en terme d'image defu ko dafa jot ñun sénégalais bu ñu am ci réew mi. Cliff parle de trahison. Celui qui était censé être le vrai général, il a trahi les troupes. Ainsi appelle-t-il les Sénégalais à reprendre leur pouvoir et de se protéger. Nous invitons, nous invitons les Sénégalais de se battre pour que virus bi bañ a mais nous ne vous invitons pas de faire comme euh, Mansour Faye Saliou Ndiaye de la coordination nationale parce que pouvoir bi ñu joxoon nguur ñi leen ko jox à la suite d'une élection ils ont failli ils nous ont trahis mais nous nous n'avons pas le droit nous n'avons nous n'avons pas le droit de trahir nos familles nous n'avons pas le droit de ne pas protéger nos femmes nos enfants bu ñu leen dans des circuits d'irresponsabilité quand nous avons des gouvernants irresponsables c'est à nous de prendre nos responsabilités. Le mouvement Y en a marre s'engage ainsi dans la lutte et compte sillonner toutes les gares routières, sensibiliser les voyageurs en cette période de tabaski pour le respect des mesures de prévention, mais aussi ñu fexe fa yóbbu ay gel di ko distribuer nit ñi ak ay masques. Et nous invitons tous les Sénégalais aussi de faire la même chose. Distribuer des masques et du gel hydroalcoolique.

pour outrage euh, à rébellion à un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions. À noter qu'un important lot de matériel d'effraction et d'armes blanches servant pour des agressions, 13 euh, de chanvre indien, 6 téléphones et un faux billet de 10 000 francs, ainsi qu'un poste radio euh, donc de marque ont été saisis. Au total, euh, de francs CFA ont été perçus au titre des amendes forfaitaires. Le président Macky a gracié détenus en perspective de la Tabaski qui sera célébrée au Sénégal ce bénéficiaires de cette mesure sont des personnes définitivement condamnées euh, pour diverses, infrac euh, diverses infractions et qui avaient été incarcérées dans les différents établissements pénitentiaires du Sénégal. de cette mesure de clémence sont des délinquants primaires, des détenus présentant des gages de réconciliation ou âgés de plus de 65 ans et des individus gravement malades de la Tabaski, les marchés reçoivent une forte affluence de personnes. Ces derniers non plus euh, se sur les dispositifs sécuritaires puisque des cas d'agression et des vols à la tire sont souvent notés dans certains marchés reportage Soukaina Nous sommes au marché HLM. Ici, on constate une forte affluence. Un dispositif sécuritaire est déjà mis en place à l'entrée du marché. Malgré la présence des forces de l'ordre, des agressions et des vols à la tire sont notés. Nous les vendeurs de bijoux, nous sommes laissés à nous-mêmes. Vous savez bien qu'il incombe à la mairie de veiller sur la sécurité des commerçants ici au marché. À partir de 19h, il fait nuit noire. Ce qu'ils devaient te défonce la de son Je suis venue faire mes achats au marché pour la Tabaski mais très sincèrement j'avais des craintes à cause de la multiplication des agressions. Un événement comme la Tabaski doit se fêter mais avec cette insécurité totale on a même peur de sortir. Mamadou Gueye vendeur invite les autorités municipales à faire régner la sécurité au marché. le marché HLM, euh, vraiment, il n'y a, y pas, y a de sécurité. quoi. Parce que beaucoup de femmes viennent ici euh, voler. Parfois, il y en a des agressions ici. Euh, on demande l'État euh, de nous aider, quoi, d'amener les policiers pour peut-être... Euh, pour nous aider à bien travailler ici. Quoi. Il a beaucoup de femmes ici qui viennent, ils n'achètent pas, ils volent des tissus comme ça. Peut-être d'État, on mobilise la sécurité aussi au marché HLM. Quoi. Le constat est pareil dans plusieurs marchés. Les vols et les agressions agressions sont de plus en plus récurrents. La population invite les autorités pour la mise en place de plusieurs dispositifs sécuritaires et assurer la sécurité dans les marchés, surtout en cette période de tabaski. À Saint-Louis, l'impératif que l'on reboise la mangrove à 40% de celle-ci a disparu à cause de l'œuvre de l'homme. C'est ce qu'a fait savoir le secrétaire général de l'Association sénégalaise des Amis de la Nature, par ailleurs coordonnateur du projet Reboisement des mangroves Sénégal Gamimoudoumboche et ses collaborateurs allemands se sont engagés à apporter leur, apporter leur contribution à la régénération de cette mangrove. Ces propos sont recueillis par Yves Tendeng. Momodou Mbodj, donc que vous entendrez euh, dans nos prochaines éditions, donc qui revient donc euh, à, à Saint-Louis. Il est impératif qu'on reboise la, la mangrove car 40% de celle-ci a disparu à cause de l'œuvre de l'homme. C'est ce qu'a fait savoir le SG de l'Association sénégalaise des amis de la nature, par ailleurs coordonnateur du projet Reboisement des mangroves Sénégal-Gambie, Momodou Mbodj et ses collaborateurs allemands se sont engagés à apporter leur contribution à la régénération de cette mangrove. Ces propos sont recueillis Voilà, a été un très bon début. Euh, nous sommes à la phase numéro un de ce projet qui consistait à mettre en place le comité de pilotage du projet. Vous savez, euh, pour démarrer un projet, il faut être avec un groupe de personnes averties, avisées, engagées dans leur localité pour que le projet puisse aboutir. Et ce matin, c'était la mise en place du comité composé de quatre représentants des quatre euh, sites à reboiser, accompagné de cinq des habitants de leur quartier pour qu'on puisse leur le fond du projet et quelles sont les prochaines étapes du projet. Et quels Les sites, ce sont Sordiagne, à l'entrée de Saint-Louis, quand on vient de Dakar. Bango et Bopchor. Et justement, aujourd'hui, quelle est la problématique justement Oui, pour quelqu'un qui connaît Saint-Louis des années Euh, je crois que c'est un peu déchirant, dépitant de voir que la mangrove qui faisait la beauté de cet archipel de Saint-Louis est disparue comme ça à cause de la main de l'homme et aussi à cause euh, des conséquences du changement climatique. Et quand je dis la main de l'homme, c'est la coupe abusive pour des besoins urgents. Euh, il y a aussi euh, cette érosion côtière liée au changement climatique qui a fait que la mangrove euh, a disparu si rapidement. et 40% de la mangrove de Saint-Louis a disparu. Et il faut qu'on revienne à cette mangrove-là. C'est pourquoi nous, amis de la nature du Sénégal, en jonction avec les amis nature allemands, nous avons décidé d'apporter notre contribution pour la régénération de cette mangrove-là. Quelqu'un le disait dans une sourate dans le Coran, c'est la main de l'homme qui a détruit, c'est la main de l'homme qui doit revenir pour remettre en place. Et nous sommes dans cette optique-là. Et puis les marchands ambulants de la ville de qui leur est faite de vendre leurs marchandises dans les rues, entraînant la fermeture de presque tous les commerces sur l'avenue euh, de Gaulle et surtout du marché sort. Et puis à Bambay, la section euh, donc self-installée ainsi Badara Ndiaye remplace Ngor euh, Ndiaye ce dernier qui ambitionne de diriger le secteur pour une limitation des mandats correspondance depuis Bambey à je suis venu aujourd'hui la section self de Bambey Cheikh délégué national membre de la section self de Fatick a officiellement installé Badara à la tête de la section locale du self de Bambey en présence d'un huissier de justice Ngor Ndiaye, le secrétaire général sortant du CELS de Bombay, estime qu'il faut une limitation des mandats au niveau du secrétariat général national. Il faut limiter les mandats. On ne peut pas être là éternel. Tout le monde est compétent. Dieu n'a pas fabriqué une seule compétence au monde. Il faut qu'il y ait toujours de la relève, à l'image de ce que nous venons de faire. Au niveau national également, on va proposer au Congrès donc la limitation des mandats. au maximum deux mandats non renouvelables. La prise en charge des politiques publiques de l'État en matière d'éducation et la prise en charge des dossiers de carrière des enseignants constitue un maillon faible de la gouvernance de Souleymane Diallo et compagnie. Nous allons participer activement à la réflexion par rapport à la définition des politiques publiques en matière d'éducation. Là, Souleymane et son équipe, sincèrement, ce groupe a échoué par rapport en charge des dossiers de des enseignants. du Sénégal pour que ensemble nous puissions participer activement dans la réflexion de ces politiques publiques pour que l'éducation y gagne, mais également les enseignants ils pourront y gagner. Sur l'expulsion de Ngorniaï du CELS, le syndicat des enseignants libres du Sénégal, le délégué estime qu'il s'agit là d'une farce de mauvaise augure. Parce que vouloir exclure une personne à la trame de Ngorniaï du syndicat avec euh, vraiment une minorité, c'est vraiment euh, insulté <laughs> les syndicats. Après le renouvellement des sections du pays, un congrès national est prévu à Dakar les prochains jours. Durbel, Sud FM, Adama Ndiaye. Adama Ndiaye, il est 7h sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Sen Radio. C'est la fin de cette première édition. Abdoulaye Diop s'installe dans quelques instants pour Sud Matin Wolof. mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo jaajëfal El Hadj Malick Ndiaye xibaar yi kon euh, li ci gën a fës dina ci bokk societé Dakar Dem Dikk daal di jël ndogal daal di ajandi bépp lépp lu jëm ci rek tukki ci biir gox yeeg gox gaxaa di ginnaaw ba ñu seetloo ni rek euh, kaaw coronavirus yi day gën di jéggi dayoo mu yemoo ko jamono yoo xamante ni jëruñ bi ñu dénk biir réew mi daal di nay rek jël ndogal ne rek lii di yonal lu jëm ci wàllum takkum masque gi ci biir réew mi yëpp muy fàttali arrêté 017 602 bu 29 avril 2021 ci jamono yooyu waa déclaration bu mouvement Y'en a marre ñoom nag ñu ne euh, méttitul nañu bu baax yokk gi nga xamante ni coronavirus bi mi ngi koy yokk ci biir réew mi kañ ca joxoñ baaraamtuma du kenn ku dul njiitu réew mi Macky Sall kaaraange gi ak su opération sécurisation ca Ouest Foire ak loo jege aéroport bi gendarmerie nationale daal di tek ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeenti doomu aadama ci ñooñee bokk na ci juróom-benn fukk ak juróomi ñeent jigéen ca néew téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti victime ñoo daa ñoo daal di loru euh, ci rek mbënn bi am ca foofee ca Europe bilan bu mujj bi xayma téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn yi foofee ca diwaan bu Allemagne ca wàllum tàggat yaram nag wàllum premier cas Covid 19 daan nañu am ca rek euh, fa nga xamante ni fa la euh, athlètes yi daal di logé wu ca village olympique yi ñeel jeux olympiques yooyu tàggat yaram COS coupe COSAFA Sénégal Afrique du Sud dibeer gi lay am ñu daal di ndar keppe tamit euh, bëccëgu fan euh, ñaar ak juróom beneelu bëccëg ak euh, bu mujj ci Ligue 1 bi NGB ak Stade Mbour ñoom ñooy wàcc ca Ligue de bi jàmbaar day dem ca Coupe CAF ginnaaw ba mu jëlee ñaareelu place bi mbokk yi kon lii moo ci gën a léegi-léegi ñu dikkaay yéen ci faram-fàcce Abdoulaye Diop. moo nekk ci kàddu gi Assane Thioune ci xarale gi ñu leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah di leen dal ci xibaar yi ñu doori kook niñ ko junjee woon ci bopp li ak société bi di Dakar dem dikk daal di jël daal di ajandi lépp lu jëm rek ci ces dessertes yi ñuy amal ci biir région yi dootuñu kon dem euh, yóbbu nit ñi ci wàccaayu tabas gi ñu ñu nekk nag ginnaaw ba ñu seetloo ni Covid 19 bi korona gi mu ngi wéy di yokk ci ab badaaxal bu ñu daal di xaatim ni ki démb euh, directeur général bi xam nag. Euh, loolee sax niki démb kon lay jël effet mu nu jotee ñu jàpp rek ni kon société boobu nag nee nañ jël na euh, bépp euh, matuwaay ngir delloo képp ko nga xamante ni daal dinay rek euh, réservé woon sa ticket ngir mën a dem tabaski ji ci biir réew mi la ci jamono yooyu la jëwriñ bi ñu dénk biir réew mi di fàttali askan bi ni arrêté numéro 017 602 bu 9 avril 2021 bi rek daal di yoonal takkub mask gi ci fépp fu nga xamante ni mbooloo dafay daje loole nag daal nañu koy jël di ko doxalaat kon ci biir réew mi yëpp ñu jàpp ni takku masque kon lu fi yoon la ci public ak privé ju mel ni ci mbedd mi ci service administration publique euh, ci service secteur privé fi ñuy jëndeek njaay ci oto yeeg dem yeeg dikk bi ak képp koo xamante ni nag da yor sa oto ca lu mu néew néew ñaari doomu aadama euh, dañ ci euh, nekk loole nag kon takk masque ga dafay nekk lu jaar yoon ministère bi nag di waskan bi ñu daal di jëf jëfee ak euh, ñu jëfee ak topp yooyu lépp ndogal ñu jàpp ne rek képp ku ko jëfewul ay daan mën naa tege si sa euh, dond sa euh, dodd kon ñu daal di wax ci loole ba tey ak takkub masque gi donte ni sax njiitu réew mi Macky Sall dina dina si jël ay matuwaay ginnaaw ngir jàkkaarloo rek ak variant delta bi ci transport yi ñu daal di seetlu nag ñu bëri ci askan bi kon ñoom duñu daal takk masque ñenn ci ay way jëfandikoo ginnaaw ba ñu daal di yëkkati rek lépp lu jëmoon ci ay uh, matuwaay metti na ci ñoom ngir ñu maa di mën a jëfee takkub masque googu rawatina ci dem ak dëkk gi ñeneen ñi nag jàpp ni uh, way takk der yi ñoom rek ñoom ñoo mën a fexe ba askan bi wala rek uh, passager yi mën a takk masque Ismaïla Marcel Koli ginnaaw bu ñu woyofalee yenn dogal yu ñu jëloon pour mën a ak mbas mi lu ñu fi nemmeeku ci jamono ji mooy ginnaaw bu variant delta bi feeñatee naam autorité yi ñu ngi ñaax askan wi ñu tàkk masque bu ñu duggee ci véhicule de transport yi waaye li ëpp ci oto yu ñu dajal tey mooy néew na lool nga gis ñu fa sol masque lu ñu mel ki ñu fekk muy jël benn bus tata bi nar dem Rufisque di ñuy xamal li tax. gis nga léegi troisième vague ba mu ñëwee nekkul fi mu doon laal nekkul foofu léeg-léeg lay mag yi yooyu yooyu noonu mais bii nii nii surtout jeunes la jël te boo seetloo ci transport en commun yi ak va yi jeunes yi ñoo ci gën a bëri kon léegi bu ñëwee ba troisième vague ñëw ak euh, habitude bu ñu amoon bañ a takk masque day day day pour ñu puusaat nit ñu takkaat masque brusquement dina xaw a métti te gis naa ne fu mu toll nii c'est de sol masque bi ak respecter mesures barrières pour le moment. kii di dawalkat bi ñu fekk ci benn bus tata jàpp ne du chauffeur du receveur yi takk seen masque lenn la xam ne looloo mun a masque mooy na takk der yi dugg ci biir oto yi ñaax askan wi ñu takk seen masque. ñu mënul leen dara client yi ñoom homme de tenue yi ñoo ñu ci mën a dimbali. civil rek ak civil koo na takkal masque bu la saagawul sax santal yàlla koo ci takkaloo masque boo musaa di nga dégg loo naqari bu ñuy yéeg dañuy takk mais bu ñu duggee ba ci biir oto bi dañuy tikki wàcc mënoo ci ñoom dara homme de tenue yi nag ñoo ñu ci mën a dimbali te yàlla tax Sidi Gueye kenn ci chauffeur rapide yu ñu dajeel di ñu xamal ne naam dina jafe trop pour ñi ñi takkaat ay masque ci jamono ji waaye lim ci xam mooy ginnaaw bu fajkat yi nee mbas baa ngi fi wéy di lëmbe réew mi nañu farlu te takk masque yi bu ñu bëggee aar suñu bopp te aaraale suñu njëgënaale. parce que ba mu tàmbalee ba nga ni damay dégg nañ li corona corona ñu ko wax loolu mooy seen liggéey gëm ko wax dëgg yàlla waaye nag xale yi moom mënoo leen taxaw takk masque moom nit ñi moom Sénégal nag réew mi moom mbir moom ji nañ ko léegi Macky Sall ndax ñëpp leen moo ko tasaare li ma joxam daal nañ takk suñuy masque daal wax jëpp mooy loolu parce moom ministre de santé wax Romo kenn ci ñoom takkul masque mu mel ni dogal bi bàyyeekoo ci ci autorité yi soxalu leen. Ismaïla Marcel Coly jërëjëf waa mouvement Y'en a marre ci ab déclaration bu ñu xamle nag méttilu nañ euh, yokkute euh, cas yi nga xamante ni seetlu nañ ko ay bés euh, moo ngi nii ñoom nag ñu ca joxañ baaraamu tuuma ki nga xamante ni moo di njiitu réew mi Macky Sall leeral yi ak Babacar Samb. ñaari junne yu tegal juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti kaa yu yees ñu daal di koy amee fii ci réewum Sénégal ci diirub ñetti fan fukk benn ci ay doomi aadama daal di si ñàkk seen ab bakkan ci diggante alxames jàpp tey ci gaawo gi mbas mile di covid-19 di law lii di ñetteelu vague bi ni fi faax mouvement Y'en a marre di duut baaraamu tuuma groupe Sénégal kilifa daal di fare ca ñoom ne ginnaaw ba corona bi li koy daan mooy toog sa ginnaaw ba corona bi li koy daan mooy jug ñun ñëpp di sensibiliser ginnaaw ba corona bi li koy daan mooy ku nekk nga dugal ci sa yoxo à deux cent pour cent ñëpp def loolu malheureusement ñi waroon a joxe le bon exemple muy notre gouvernement nekk le gouvernement le plus irresponsable de l'Afrique même du euh, de la planète mouvement activiste bi di Y'en a marre di saaku ci askan bi ñu daal di doon seeni soldat bopp ngir xeex mbas mi di Covid-19 te jël bépp matukaay ndaxte nee nañ daal nguur gile daal nay lajj ba noppi kon tey jii dama koy bamtuwaat na ku nekk te sa destin en nekk sa généralu bopp na ku nekk nekk sa conseiller bopp ak conseiller ki nga dendal mais ku nekk protéger boppam protéger ki mu dendal mooy comme ni ñu ko waxee ci sàmm bi aar sa bopp aar ñi la jege fagaroo gën faju digle yi nañ ko jëf mouvement Y en a marre yemul foofule ndaxte fas yéene na ñaa wutali euh, fépp foo xamante ni gare routière mu ngi fa te askan bi fas yéene faat dem ngir tukki jëm seen ëpp dëkk ngir feete lii di tabaski ji ak seen ëpp mbokk ñu daal di waxtaan ak ñoom daal di leen di sensibiliser ci feebar bi waaye itam daal di leen di seddale lépp loo xamante ni jumtukaay la jëm si wàllum xeex bi li ci mel ni masque ak gel hydroalcoolique Babacar euh, Samb ñu wax ci wàllum kaaraange ak njiitu réew Macky ci jéggal gi nga xamante ni da koy faral di jéggal ñu ñu ñu caabi féete ginnaaw ju ñu jëmee ci ay feet yu ci mel ni tabaski daan nay rek euh, jéggal lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukki euh, prisonnier ñoom ñoo ne nag ñu ci mel ni ñu daanoon ay pen yu bëri la ak ñi nga xamante ni dañ leen daal di kon tëj ci fepp fu nga xamante ni kasolo ci réew mi ñoom nag ñi nga xamante ñoom la ñu bàyyi ñuy tuddee ay délinquant primaire ay détenus yi nga xamante ni dañoo rek euh, taxaw ngir rek ñe seen nekkin war naa mën a nekk foofu maanaam bonne conduite ak ñi nga xamante ni am nañ lu toll ci juróom benn fukk ak juróomi at lu ko ëpp ay ñi nga xamante ni dañoo daal di tawat ak i euh, mine mineur mu yemook jamono yoo xamante ni nag euh, gendarmerie nationale daal di def rek euh, fii ci ndakaaru gendarmerie bu ndakaaru daal di def opération de sécurisation fa nga xamante ni moo di ca westu Foire ak la wër aéroport Léopold Sédar Senghor ci opération boobee nag daamoon diggante samedi 6 heures ba 9 ci suba si daal di ne taxoon lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukki gendarme ñu daal leen jël loolee nag teg nañ ci seen loxo kon lu toll ci euh, ñaari téeméer ak juróom-benn fukki doomu aadama yoo xamante ni ku nekk ak réew ba nga daal di bokkee bokk na ci juróom-benn fukk ak juróom-ñetti juróom-ñeenti jigéen kon ñu daal leen di teg loxo ci loole nag euh, bokk na ci fukk ak ñetti corne de chanvre indien juróom-benn téléphone faux billet bu euh, ñaari junni ak i poste li ñu tuddee ay talkie walkies ak lu toll ci quatre cent cinquante neuf mille francs ñu daal di koy jëm ci rek lu jëm ci wàllum amende euh, forfaitaire ñu wax ci wàllum tabaski gi ay fan ay rek def bés moo ci daal di des kon ñu daal di rek euh, ni marché yi jamono ji mi ngi am ñu bëri ñi nga xamante ni nag ña nga fay daal di euh, dem. loolee nag ñoom yëkkati nañ seen kàddu jëm ci wàllum kaaraange gi ñu jàpp ne rek jëfewuñu ko benn yoon ci marché bi Soukeyna Gaye reportage ñu ngi ci marché HLM ñu ràññee fa ni marché bi lay xumb na lool bu weesoo teewaayu takk der ci buntu marché bi askan wi ràññee nañu fa ay agression ak ay sàcc yu bari. ñun ñuy jaay bis yi mu ñu benn sécuritaire gis nga gisoo fi dara sécurité bi maire bi ñoo ko waroon a jël ñu ngi fay suñuy droit ñoo waroon tey def sécurité bi taal lamp yi lamp amul bu guddee fekk bu 19 heures ci xasee jot lamp yi day lëndëm këris kenn duutu gis bu événement ñëwatee ñu wala nga gaare soo defale gars yi ñëw dajji ko xam nga am na heure yoo xam mënoo ko wàcc ñu dajeeg moom mu ànd ak borom mu ngi ñuy xamal ni situation bi jéggi na dayoo bu ñu demee ba ragal a dugg ci marché yi ñëwoon ci marché bi doon wutal samay waa kër lu ñu tabaske ak insécurité bi fi ne soo bëggee ñëw ci marché bi sax da ngay xaw a ragal parce que da ngay ragal nga génn nit ñi dal sa kaw nangu sa alal wala gaañ la événement bu toll ni tabaski nga bëgg a génn te oo génn ndax insécurité ak période bi ni mu mel ak covid bi Mamadou Gueye jaaykatub mu ngi woo ñi jiite mairie bi bi ak nguur gi ñu gën a yokk kaaraange gi ci biir marché yi. mais marché bi moom xam nga sécurité bi des na lu bëree bëree bëri jigéen yi moom yu mat ñaar wala ñett ñoo xam ne dañ doon sàcc fii ñu jàpp leen te aussi eh, agression bi bëri na fi trop am na ñoo xam ne dañuy jaayalaay mais jaayuñu quoi leneen lañ ci dugal am ñu bëri dañuy sàcc seen xaalis et loolu yëpp daal bu ñu mënoon wax état bi rek peut-être événement bu amee mobiliser ñoo xam ne na ñëw di sécuriser nit ñi moom dañu am solo trop quoi loolu daal lañ ci gën a ñaawlu daal vraiment su ko defee clients yi gën a ñemee ñëw daal duñuy ragal dara ci marché bi quoi. jamono ji ñu tollu taxaw seetlu bi benn la ci biir marché yi ay sàcc ak ay agression ñu ngi koy ràññee bu baax ci biir marché yooyu lay askan wi di ñaax nguur gi ak maire yi ñu gën a yokk kaaraange gi ci marché bi surtout ci jamono tabaski bi ñu dëgmal. su kay na ngay jërëjëf ca ndar géej moom ñu ne jàmp na jamono ji ñu daal di saxalaat wàllum mangrove foofe ndax ci téeméero jël ñeent fukki dafa daal di daal di dee ndax rek yi doomu aadama ci biir loole nag ki nga xam ne mooy secrétaire général association sénégalaise ami de la nature nekkit coordonnateur projet giir jëmbataat ay mangrove ci diggante Sénégal ak Gambie di mboo ci moom. moom nag ngeen jégal ñu ànd ci ak ay naataangoom yu ne ca fete ca réewum Allemagne daal di taxaw rek ngir indi seen rek jàppale ci rek ñu daal di yeesalaat bu baax mangrove boobee ay doom Yves Tendeng moom moo ko daal di taataan. waaw suñu ndaje ndaje jàmm la rek parce que xam nga képp ku dëkkoon ndar ci jamono yàgg ya gisoon nga ni mangrove bi amoon na nu meloon rafet sëq am njëriñ pour ñëpp waaye doomu aadama moo jaar foofu ba nga xam ne lu ci bëri yàqu na yàq-yàq boobu noonu la ñu bëgg a faj parce que dañ loxo doomu aadama yàq loxo doomu aadama moo fora dellu defaraat ko ñun nag dañu lëkkaloo ak suñu ay naataango allemand yu tudd ami la Nature d'Allemagne ñun ñuy Amis de la Nature du Sénégal ñu gis ni war nañu mën a indi benn contribution projet bi nag mu ngi tudd régénération de la mangrove à Saint-Louis capacitation des population locale mooy delloo siwaat àllu mangrove bi dooleel nit ñi dëkk ci boor boobu pour ñu mun ko aar toog ndakaaru ne da ngay sooxat mangrove bu nekk ca boppu coor te wax ak waa boppu coor donc ñu ne nañu créer benn comité de pilotage bi nga xam ne information bi day jàll diggante ñoom ak ñun ba nga xam ne ñoom dinañu wax seen population locale yi lépp lu ñuy def ñu yëkkatandoo tegandoo. man en tant que coordonnateur nag Sénégal Gambie parce que projet bi yemul ak Sénégal ak Gambie la dafa doon sama warugar ma créer benn structure bi nga xam ne dinaa mën a liggéey ak ñoom même su fi nekkul. ñoom suñ fi nekkee sax nañu mun liggéey mooy comité de gestion de la reforestation de mangrove de Saint-Louis moom lañ doon def quartier bu nekk tànn nañ fa kenn. muy Sor Diagne muy Bango muy Xor ak bopp Coor ku nekk tànn nañ fa kenn boole ko Penda Fay mi nga xam ne mooy point focal fii ci Ndar ak man muy juróom-benn ñun ñooy kuréel bi nga xam ne ñoo war a dawal projet bi. ñoom sentir nit ñi gis nañ ni mbir am soxal na waaye ah parce que soo waxtaan ak yenn nappkat dañu leen wuu ñun de avant daaw nañu jàpp jën te lii moo doon tax ñu jàpp ko. ñu doon defar lem dañ leen wax daaw nañu am lem bu bëri lii moo doon tax ñu am ko. waaye mangoro bi mu deyee ba léegi gis nañ ci ay jafe-jafe foofee ca Ndar Géej la ñuy des ak euh, ñi nga xamante ñoo di marchand ambulant yi foofee ñoom nag ni ki démb dañoo meroon ba futt rek nax lañ leen tere rek ñu daal di jaay seen i marchandise ca mbedd ya loolee waraloon ñu daal di tëj lépp lu jëm ci commerce ca avenue de Gaulle ba ak ca marché bu soor ndaw yooye nag bëgg def liggéey bu baax ci jamono yi wàccaayu tabaski ñu nekk nag daal di mer ba futt ci ndogalub autorité municipale yi tere leen rek ñu daal di euh, sax jotee sànnante ay xeer euh, ñi nga xamante ni ñoo di takk der yi ñoom ñooñu nag daal leen di euh, joor ay euh, lacrymogène ginnaaw nag coow loolee mu amoon ay dal waaye terewul ñoom marchand ambulant yi ñu mer ba fut ca Bambey section CELS ñoom daal di nañu koy daal di taxawal foofe ci loolee nag Badara Fall moom moo wutu ki nga xamante ni moo di Ngor Ndiaye euh, Ngor Ndiaye moom mi nag bëgg jiite secrétaire euh, général national bi nag la mu bëgg mooy ñu daal di yemale euh, mandat yi Adama Ndiaye. man délégué national laa nekk membre CELS Fatick ñëwoon fii tey à Bambey. pour monter la section CELS de Cheikh Waly Ndour di délégué national bokk ci CELS bu Fatick moo teg Badara Fall ci boppu CELS bu Bambey mu wutu fa Ngor Ndiaye ginnaaw ba nga xamante ne ab UC teewoon na ci li ni mel Ngor Ndiaye jàpp ne mandat yi dañ ko war a limiter ci syndicat yi. suñu demee dinañ ko soumettre au congrès mu valider limitation mandat. nga xam ne soo defatee ñaari mandat ci syndicat bi nga bàyyi nag keneen ñëw ñu masaat keneen loolu mooy indi dynamisme mooy propulser la dynamique vers le changement et vers la matérialisation prise en charge politique publique nguur gi ak it prise en charge bu dossier carrière u jàngalekat yi doon nañu leen ci jafe-jafe yu nga xamante ne moom la équipe bu Souleymane Diallo di jànkoonteel Souleymane Diallo ak ñi mu àndal dañoo participer wul dara dara dara ci ci réflexion yi nga xam ne moom mooy dundal éducation ak système donc foofu dañoo sooxee foofu ak prise en charge des dossiers actuels des enfants foofu dañ ci lajjee maa ngi ko en 2019 bi ñu demee Jivu Kanel le ministre de l'éducation bi muy termine speech am nee na maa ngi maa ngi xaas les conclusions de vos assises bi mu mooy Mamadou Talla mi bi mu koy wax dama am gàccee parce que quand même su dee dañuy wër réew mi ci ay nelaw rek lekk ak naan ak nelaw amul sens il faut ñu bokk ci ñuy xelal ak nguur gi ci wàllu éducation pour réew mi éducation bi dox mais enseignants yi aussi seen mbir mën a dox. bi biñ ko laajee ci dàq bi ñu wax ne moom la ñu dàq Ngor Ndiaye délégué national bi nee na loolu ay caaxaan la ginnaaw renouvellement section yi nga xamante ne ñoo nekk fii ab congrès national ñu ngi koy waajal fële ca Ndakaaru ci fan yii di ñëw Diourbel Sud FM Adama Ndiaye Adama Ndiaye euh, jërëjëf euh, ñu wax ci xibaaru euh, bitim réew dem fa la nga xamante ni moo di ca Europe rawatina ca bët gànnaar jàpp saw jant Europe foofee nag ak mbënd yi nga xamante ni daan na fay am loolee nag bilang bi ñu ne kon yokk na ba ci téeméer ak juróom-benn ak juróom téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn doomu yi ci ñàkk bi seen bakkan ca Allemagne ni ki tey ji si suba gi la ko police ba daal di xamle loole nag yokk affaire yi ba ca téeméer ak juróom-ñett ak eh, ñett ñi nga xamante ni ñoo daal di loru seen eh, ñoo loru kon ci mbënd yooyu di taw yu foor yi am ci réew yu bëri ci mel ni Belgique pays ba ak eh, Allemagne ca benn état régional Allemagne bu ñu foofee nag police locale ba daal di xam leen ni téeméer ak fukki doomu ñoom ma ñàkk nañ fa seen bakkan ci ab communiqué mu toll néew nag mu daal di jóge kon téeméer juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ci bilan bi nga xamante ni mujjee nañu ko daal di def ca état. juni foofe nag benn match de baseball la ñu daal di dakkal ginnaaw ay euh, soxi bal yi nga xamante ni daal nañu koy daal di dégg ci nga xamante ni moo di ca bi type euh, stade ba ñu xam ne match bi kon dañu ko daggal nax incident boobee ñaari taskatu xibaar yu AFP nag ñoom daal nañuy dégg lu toll ci kon fukki soxi euh, bal loolu lañ daal di xamle ginnaaw ba nga xamante ni police daal na fay daal di ñëw kon ñu daal di ajandi boobu match. ñu wax eh, ci xibaaru eh, tàggat yaram ak Cosafa eh, këpp di coupe bi nga xamante ni ñoo ngi koy amal fële ca Afrique du Sud Sénégal ginnaaw ba ñu ko invité daal dem ca final ba di fa dal war a jàkkaarloo ak Afrique du Sud mu nekk nag ñu ne gaynde Sénégal yooyu nag ñoom xam nañ enjeu bi ak solos match boobee ba tax na ñu ne noppi nañ ngir def seen kéemtalaay kàttan ngir am ci ndam kooko xam le rek mooy délégué ba bi ànd ak ñoom foofee di na jata ñu déglu ay kàddoom ak El Hadj Sénégal. Euh, dañ ma euh, bi par rapport à, à, à l'équipe du Sénégal alors euh, ma ne leen ñun Sénégal Sénégal ñun nous sommes le Sénégal donc dañuy dem Afrique du Sud du pour figurer foofu du pour tourisme mais dañuy dem Afrique du Sud pour pour pour pour xeex pour xeex won won àdduna bi que Sénégal moom équipe football la donc euh, même même si euh, équipe yi dañoo bañoon bàyyi libérer seen joueurs yi parce que xam nga période boobu noonu dafa tombé Euh, fin de saison mu des quatre journées de la fin donc euh, yeneen équipes yi ñu ngi xeex pour nekk champion ñenn ñi ñu ngi xeex pour pour se maintenir ñenn ñi pour ñu xeex pour pour yéeg donc pour ñu libérer seen joueurs yi euh, dafa métti yoon mais coach bi moom bon xam nga il a tout fait mu am sélection boo xam ne sélection bi dafa ñëw fii premier match bi ñu perte ko parce que dañoo sonnoon trop voyage bi dafa guddoon. ñu ñëw ba fii sonn parce que waroon jouer le huit finalement changement euh, poule yi def nii ñu jouer le sept donc en ce moment on est arrivé le cinq xaw ma le six donc on joue le sept euh, contre la Namibie malheureusement ñu perte match boobu noonu mais après booy commencé yéeg puissance en puissance en puissance di yéeg di dem di dem di di di di vraiment di def njaloore jusqu'à tey jii ñu war a jouer contre Afrique du Sud te xam nga final moom da nga da nga koy jouer pour gagner nekkul da ngay ñëw pour jouer noonu rek ñu ngi ñaan yàlla pour que euh, suba nag. yàlla may ñu ndam bi chance bi nekk si ñun te euh, ñu ñaan euh, waa dëkk bi yëpp Sénégal ñu ñaanal ñu bu baax a baax a baax pour ñu mun a gagné trophée bi en tout cas loolu la parce que euh, xam nga booy moom comprendre nañ ne que football bi moom il faut liggéey boo liggéeyul moom doo dem donc vraiment ñu ngi si ñu ngi si bu baax a baax a baax te yaakaar naa ne suba moom incha allah bu yàlla dogalee may ñu ndam suba si kaw Afrique du Sud. mi ngook euh, yàlla kon may leen dem gayndey euh, Sénégal yooyu ca coupe euh, CAF ak final bi Sénégal ak Afrique du Sud ñu dellusi fii ci réew mi ak assemblée générale renouvellement bu ligue régionale bu football bu tamba daal nay jeex ni kii démb camp bi ñuy tuddee wàllum ñi nga xam te ne ñoom ñoo bëgg indi coppite kon ñoom ñoo daal di jël loole ñu rek bëgg ab déggoo ci assemblée générale bu fédération bi Babacar Boubacar Tamba. ña doon wootee soppi ñoom bu ñu daan jël bu set wecc ña ngaan kon ligue régionale de football bu Tambacounda Mamadou Ba lañ daal di fal. di gërëm di sant ñi ma àndal si liggéey bi. particulièrement suma mag bi nga xamante ne moo ma tette moo ma jàngal ba tey ma am lii mooy monsieur Souleymane Danfa. di gërëm di sant équipe bi nga xamante ne ñun ñoo nekkoon équipe du du changement. équipe boobu ñaari candidature moo fi am mooy man suma bopp Mamadou Ba et le candidat Alain Kabo. maak Alain ñu waxtaanoon ba juboo ne bu ñu demee élection. bu yàlla defee ku jiitu keneen ki fekk ko si yàlla def na ma jiitu mu fekk si ma donc li ñu waxtaanoon ñu ngi ñaan yàlla mu continuer di law parce que pour njëriñu footballu Tamba. moom président ligue bu bees bi di woote lii. maa ngi tàllal loxo l'ancienne équipe. si tàllal loxo boobu. nangul nañ leen ko ñun aussi parce que si biir salle bi yàlla def na ne que présidence bi jàll na si jàmm ak salaam reste bureau bi nañ ko def si jàmm ak salaam ñu tàll leen loxo ñoom ñëpp ñëw bi ñu ñëwee ñu dugal leen si bureau bi ñu intégré ñoom sax ñoo tànn poste yu ñu buggoon loolu mooy wane ne ñun pare nañ pour liggéey ak ñëpp danañ toog waxtaan ñu xàccandoo ñu dóorandoo pour mën a dem réintégrer parce que Tamba bokkoon na temps président Ibrahima Traoré on rend hommage à ce dernier dan moom Tamba référence la woon mais bi mu fa jógee ba tey Tamba dafa dem ba bokkatul léegi nag bu neexee yàlla yonent bi loolu suñu papa Ibrahima Traoré doon def dañuy fexe danañ dem jëli leen ñoom ñëpp ona a un ancien directeur du stade Léopold Sédar Senghor ñooñu ñëpp danañ leen jël ñu intégrer leen si suñu dispositif pour ñu mën a doxal football bi mu dem kanam parce que ñun rek mënuñu. Mamadou Ba xottal yi kaddu jëmale ko ci ndaje bu magu fédération bi ñuy waajal. élection fédération bi comme ni mu la ko waxee ci français mooy ñun dañuy dem fekki nit ñi. consensus la ñëpp prôné ñu fekk ci leen ci consensus. président ligue régionale de football bu Tambacounda bëgg soobu ci infrastructure yu mucc ayib Boubacar dama doon cee jokkoo fii ci Tambacounda rajo Sud FM ñu daaneel ak euh, Ligue 1 euh, bi kan euh, match bu mujj kon ci championnat ren ji ci juróom fukk ak ñaar fukk juróom-benneelu bëccëg bi Tëngéej FC mi nga xamante ni moo jël rew gaddu gi kon dina dalal ay Pikine fa nga xamante ni moo di ca stade Galandou Diouf ngeen jàpp rek ni démb kon ñi nga xamante ni ñoo di stade Mbour ak ñaari tali ñoom ñoo daal di wàcc ci Ligue de bi jàmbaar daa dem ca Coupe CAF ndax moo jël ñaareelu place bi Ligue 2 bi tamit dañ leen ko daal di ndarkeppe match jotee lay am di uh, Kër Madior Linguère Port Duc Sonacos US Ouakam ak EJ Fatick Renaissance Africa Promo Foot Guédiawaye FC uh, ak Demba Diop FC Jamono Fatick ak Amitié FC lay doon Linguère kon moom moo daal di jëlaguma raw gàddu gi ndax benn poñ lak la daal di rawee waa Guédiawaye FC kon tey jii lañuy xam uh, kan ban équipe kon moo war a nekk champion ci Ligue 2 bu football fii ci réewum Sénégal 7h teg ñaar fukki simila ak juróom benn ñoom fi ak yéen ci xibaar yi suba si Abdoulaye Diop moo nekkoon ci kàddu gi Assane moo nekkoon ci xarale gi bu leen toxal seen déglu fi ak simili yi néew El Hadj Malick Ndiaye dina fi kaat ci xibaar yi ci kalamay nasaraan lay doon jërë ngeen jëf.